père Papis nuyu naa la buur lay fay li nu doon coow léegi coow li jeex na loolu la yàlla dogal de mais Papis est-ce que fi Modou toll ku ne xam na ni ama bi mu téye couronne bi situation bi moo ko daloon première sortie am ci la ko ñàkkee est-ce que le couronne n'est pas en jeu non non yàlla moo tuddoon ne da koy yor benn année année bi su mu ñàkk ko suñu borom moo dogaloon loolu Eumeu Sène du Modou te Modou moo ko jël ci Eumeu Sène na yàgg ci Modou xam mu sax ci moom am nañ yaakaar daal nañ ci am ndam te yàlla nañ yàlla may ndam. mais xam nga toppante bi dafa yàgg Ama Baldé dafa gëmoon ni que tey ku la daanoon ca mbapat loolu yàgg na fu mu toll danaan il faut ma daje ak Modou Lo est-ce que jàppale nag dafa taxaw fu dëgër ba noppi soog a laaj. non non du ah loolu yaakaaruma ko de. xam naa daf ko teg ci cadre que mbër la rek jàpp ne moom mën na daan Modou ba des fois nga toog di seetaan nit bis bu bëree nga ne kii suñu bëree mën naa ko daan yaakaar naa foofu rek la ko teg ci sportif mais pas ci côté ay gàllaaj ak yooyu ci li ma yaakaar. moom dafa gëm ne que il sera le le nouveau roi loolu la gëm. waaw loolu la gëm mais ñun tamit dañoo gëm ne lii pareeguñ sax pour joxe ko. pareeguñ pour jox ko fu ñu ko teg. fi ko teg liggéey bi ci war mi ngi koy def. mais ñi mu daan ba jël couronne bi ñu ngi doon liggéey liggéey bi ci war. waaw ah, loolu ñooñu ñooñu la man ñooñu dëkkuma ñooñu te gisuma leen man ki ma dëkkal ak li ma gisee muy doxee <laughs> moom laa sañ wax ci moom. mais Papis Ama Baldé ngeen war am du Eumeu Sène du Bombardier du keneen xale la comme yéen am na doole mën na bëre am na fit. c'est pas première fois moom di bëre ñu ko ëpp sax doole. loolu moom bëreeg Balla Gaye bëreeg Eumeu Sène bëreeg Lac yaakaar naa ne bëreeg Ama Baldé war laa jaaxal de. su ama su ama jëlee couronne bi nag. ah oui loolu du am waa allah yàlla du am sax <laughs> du am incha su ko jëlee. du am bu soobee yàlla. su ngeen ko daanee la mooy seen ginnaaw ndax boobaa lamb ji lépp jeex na. instant bii nii ñun nañ li waroon def yëpp def nañ ko fi ñu dañuy bëre nii. <laughs> waaw dinañ ko fay incha allah avec le temps yéen a ngi fi ñu ngi fi dinañ ci xam dara yàlla baax mais Ama daal am na bés. waaw am na bés seen xam ne am na bés ñun ñu ngi koy waajal te bés bu ñu fonk la nag bés bu ñu respecté. waa Pikine ngeen ko seqal de. <laughs> sport la rek mënul passé cadre sport. lamb rek la. lamb kese la mënul passé lamb waxtu dina bëri nii mais xama mais arène nationale lañ koy bëree est-ce que du opportunité ci ci non loolu ci dara ñun yàgg nañu fekk si nit fekk si nañu sax daan loolu dara. mais lamb ju bari ay compagnie la. waaw loolu lañ ci bëgg. compagnie ngeen ci bëgg. waaw. bàyyi li nga wax waay moo wax li am na loolu. loolu da lañ ci bëgg box sax lañ ko war a def wala ñu def ko MMA. dañ ko bëgg a corriger. <laughs> waaw non nañ ko def box def ko MMA. yéen sañ ngeen a Modou sañ naa dugg ak Ama Baldé ci benn kaaf. cooki. yàlla xam na ne kaaf sax dafa rëy. <laughs> yàlla baax na wax baaxul ku jëf war wax amu fa yoon